salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk GTV bi la léegi la jógee garage doon doon dem Tiwaawan même pas dix minutes mu woo ma ni ma oto bi soge na loolu dong laa si am bi ma ñëwee wax dëgg yàlla rek gis naa soog bi am nay blessé rek mais wax dëgg yàlla yàlla def na si sutura moom kenn dammuwu si xanaa ay ay blessures yu ndaw ay dagg-dagg loolu doo nga si loolu doo nga si am mais wax dëgg yàlla yàlla sànq sànq nañu sutura wax dëgg yàlla amul benn blessé loolu ay blessures yu ndaw wa ndaw loolu dong la la jóge doon ñu doon dem Tivaouane diggante bi même pas dix minutes loolu daal laa si am moo tax ma ñëw nii. Hmm? mais léegi ñun euh, ku bëggoon nañoo xam carrément lan moo sabab lii bi quoi moom accident bi daal moom leen dong la wax moom fële la euh, embouteillage bi amee amee xaw ma am na nee na nee na am na lu leen traversé par la suite su ko naroon a dóor si oto bi moo tax soo xoolee garab yi ne ñi nga njëkkiwul njëkkiwul la dal mujjee dara garab yi mu daal garab gële fàq na ko bu doogee si fii ñi ngeen ko nële garab gële la fàq jaayante na ak moom moom ba ñëw wax dëgg yàlla sëfër bu sëfër sëfër bu bien te fekk tamit loolu loolu lañ wax nee loon su bu ndaw la tamit dina gën a ñaaw mais wax dëgg yàlla sëfër bu sëfër bu ñoom ñoo ko seedee laal ñoom ñu nekkoon ci biir oto bi ñoo ko seedee dëgg yàlla mais sëwër bu baax la moom bu bien la sëwër bu mag la tamit ensuite yàgg na maa dawal wax dëgg yàlla c'est la première fois lii am si merci merci ñu lay jaajëfal. jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk GTV ñu ñoo leen jaar man maay borom léegi la jóge garage doon doon dem Tiwaawan même pas dix minutes mu woo ma ni ma oto bi soge na lool dong laa si am bi ma ñëwee wax dëgg yàlla rek gis naa sog bi am nay blessé rek mais wax dëgg yàlla yàlla def na sutura moom kenn dammuwu si xanaa ay ay blessures yu ndaw ay dagg-dagg loolu doo nga si loolu doo nga si am mais wax dëgg yàlla yàlla sànq sànq nañu sutura moom wax dëgg yàlla amul benn blessé loolu ay blessures yu ndaw a ndaw loolu dong la Cees la jóge doon ñu doon dem Tiwaawan diggante bi même pas dix minutes loolu daal laa si am moo tax ma ñëw nii. Hmm? mais léegi ñun euh, ku bëggoon nañoo xam carrément lan moo sabab lii bi quoi moom accident bi. daal moom leen dong la wax moom fële la euh, embouteillage bi amee woon xaw na nee na am na lu leen traversé. par la suite su ko naroon a dóor si oto bi moo tax soo xoolee garab yi ne ñi nga njëkkiwul njëkkiwul la dal mujjee si dara garab yi mu dal garab gële fàq na ko bu doogee si fii ñi ngeen ko nële garab gële la fàq jaayante na ak moom moom ba ñëw wax dëgg yàlla sëfër bu sëfër sëfër bu bien la te yi la fekk tamit loolu loolu lañ wax nee nañ su loon su loon sëfër bu ndaw la tamit dina gën a ñaaw mais wax dëgg yàlla sëfër bu sëfër bu ñoom ñoo ko seedee laal ñoom ñu nekkoon ci oto bi ñoo ko seedee wax dëgg yàlla baax la moom bu bien la la suite yàgg na maa dawal wax dëgg yàlla c'est la première fois lii am si waaw. merci merci ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf.